40 yàggatul incha allah rabbi li mu yaakaar dina ko nax day summeeku ma summeeku ñu taxaw ci géew bi bu arbitre sifflé man du ma xaar combat boo xamante ni combat bu am importance fu mu combat bi di yóbbu man laay gis non liggéey na nag mais amul doole Lac lu mu duy nag xeeb maa liggéey damaa liggéey bari wax la boo si ma ko mu feeñ mooy dëgg jour si maay gën a jekk maay gën a rafet maay bëri li ma koy laaj mooy bu mu fi abandonné rek kon contre mu sandonné Assalamualaikum, encore am mbokk téléspectateurs yi safo di sen télé LVD la voix du Njambour waaw ñu ngi fi lepp si préparation li nga xamanté moy digënté Youssou Ndour ak Taxé si combat bi nga xamanté moy combat spécial bi nga xamanté né suba moy am fi nga xamanté moy arena nationale tay nak ñu ñëwon si wa Yusundur, Youssou Ndour xon nak lañuy nak lañuy préparer sen combat nak lañuy veiller ndax lolu moy yoon. mbër bu waree bëree waa koñom du ñu nelaw dañuy jéem a aar koñ bi comme ni ñu koy waxee ñu ñëw waxtaan ak ñoom xool naka la ñu waajalee combat bi ma seet si ki nga xamante ne kenn la si Youssou ñu ñëw fii fekk si ko fii si salon bi ñu koy wax laay ñu ngi lay ziar bu baax laay. waaw mais ñu ngi lay dellu ziar bu baax sëñ bi. waaw nga jàkkaarloo télé bi nga xam ne mooy LVD la voix du Ndiambour. Mm-hmm. waaw euh, bu ko defee ñu ngi nuyu ñëpp di wax salaamaaleykum xam nga ñi nga xamante ni ñëpp ay euh, ñooy ami internet bi xam nga. Euh, di LVD euh, tay ñu ñëwon seet si woon ñu euh, pour suñu leader bi nga xamanteni moy moy suñu mbeur hmm. moy Youssou Ndour numéro 2 xam nga. waaw Youssou Ndour 2 moom macha allah instant bi mom ñu ngi ci waccay bu baax baax tali bi kenn nelawul. parce que depuis 5 heures ba légui ni ñangi ci si tali bi gars yi ngi xam nga activité yi dugg ak gene pour préparer combat bi ñu jëm suba. mais combat bi ngeen jëm si muy kombaa boo xamante ne Youssou Ndour wala daja koo xamante ne mbër bu mag la ndax taxe ku ko dégg xam ne mbër bu mën a bëri la mën na xeex mën na bëri mais yéen naka ngeen waajale seen bopp si combat boobu. Euh, non loolu moom vraiment euh, du loo xamante ne nii sax euh, lu ñuy maanaam lu ñuy développé lu bari quoi parce que Youssou Ndour ku ko xam xam ne Youssou Ndour mbër mu mag la Youssou Ndour yàgg na fi def ay jaloore. Youssou nduur moom macha allah parce que Youssou Ndour képp kuy pour man man dama jàpp ne Youssou Ndour képp kuy takk ngemba Sénégal Youssou Ndour moo la dàq bëri. ah nga tëkk fan. parce que dañ ko seedaan <laughs> dañ ko seedaan ba pare yu dafa ñëw tarbi yu euh, li nga xamante ni mooy bëri. Mm. yeroo fii si ta yeroo fii gi muy tefes gi. tefes gi waaw waaw bëri. xam lan mooy mbër. Mm. daan fi jël bu ne. Mm. li ma lay wax nii euh, laaj ko waa que Tafa Gueye à l'époque fi indi fi ay mbërëm. jamono ji nga xamante ni formaan loo formandoo daan fi organiser ay mbappat mais Youssou Ndour jamono jooju moo daan toj làmba ji amul benn mbëru ndakaar bu daan ñëw fi di yóbbaale victoire déet waay déedéet <laughs> ah loolu amul gisuma ko mais fi nekk nii par rapport euh, ak seen mbër nag ngeen waajee contact yeex yooyu parce que tamit xam nga dafa tombee làmba ji dafa tombee weer boo xamante ne mooy weeru koor ñi nekkoon si te pour mbër mën a jàpp forme carrément loolu nag ngeen ko dundee waaw euh, bu dee loolu moom euh, amuñu si euh, vraiment lu ñuy sikki saako quoi parce que mbër navant mi ngi woon ci entraînement yi waaw boobu ba léegi toogul xam nga avant koor gi la commencé nekk ci entraînement même ci biir koor gi daan na entraîné comme ni mu waree quoi waaw même ci koor gi yàlla def na chaque heure bu ndogu bu paree boo demee salle bi da nga fekk boo demee tefes da nga fekk. bàyyiwul benn yoon quoi combat yi moom ni ñu ko waree a euh, préparé préparé nañ ko quoi ni ñu ko war a préparé moom macha allah am nañ ci yaakaar ci moom. parce que Youssou nduur aussi am na expérience ci lu muy def du mbër bu ndaw. ñun classé wu ñu ko ci mbër yu ndaw yi quoi. parce que fi mu jaar yëpp ñun teg nañ suñu bët ba pare euh, vidéo yaa ngi ci euh, archive yi ñu denc. kon Youssou Ndour ku ko xam-xam ne mbër mu mag la bu amee combat ni mu ko war a waajee noo waajalee lu ñu koy ñaaxaat dañ koy dolliwaat kese quoi. parce que pare naka li mu ko war a pare mu ngi entraîné euh, comme ni mu waree mu ngi récupérer en même temps aussi euh, jox cër aussi adversaire am parce que. Euh, taxe aussi tamit du mu ndaw. taxe aussi du mu ndaw. mais ko qu'on puisse dire aussi ñun am nañ yaakaar ci suñu mbër. parce que toppatoo nañ ki nañ ko war xam nga ñu ngi koy entourage bi aussi ñu ngi ci jàpp bu baax à 100 pour cent. entourage bi bàyyi ñu ko benn yoon mu wét ci combat bi quoi. mais si côté mobilisation nag ngeen ko waajalee ak waa Jokkul. waaw euh, mobilisation mobilisation bi moom comme d'habitude rek parce que Jokkul ku ko xam-xam ne euh, quartier la boo xamante ni dañuy yàgg yëngatu ci wàllu mbapat ci wàllu làmb. te su Ndour yàlla dafa defoon mu amoon gàllankoor. te gàllankoor boobu alhamdulilah instant bi ñu ngi siy sant yàlla bu wér wér. gàllankoor bi instant bi jeex na. parce que euh, bu ma juumul euh, jóge nañ aussi si ñetti combat yoo xamante ne nii ñetti victoire la am. waaw ñetti victoire nga xam ne kooku instant bi macha allah mobilisation fi mu nekk nii desetul ci moom. confiance bi am na ko. confiance am na ko ba pare. mais nag ñun waa Jokkul ak ñun waa Tëngéej ñëpp bàyyiwuma dàngu. bàyyiwuma barñi. Hmm. bàyyiwuma yeen. bàyyiwuma euh, li nga xamante ni moom la Tëngéej couvrir lépp ñoom ñëpp ñu ngi koy préparé massivement. kon de drapeau bi fi nag combat spécial la boo xamante ne ah. ki ko tuddee mooy Abdou Fall Ndiaye kon ça veut dire que drapeau bi war na dellu si waat Tëngéej. <laughs> ah loolu day moom fu dëgg yàlla moom loolu sotti seet def si la quoi kon euh, ñu ngi koy xaar si Tëngéej. parce que drapeau Abdou Fall Ndiaye loolu aussi du drapeau bu ndaw. Mm-hmm. du bu ndaw te aussi ñun fi ñu jëm xam nañ ko. ñun fi ñu jëm du fii. combat bi nga xamante ne nii guerre moom moo ñu solo. Hmm. ak euh, combat yi nga xamante nekk suñu kanam. non vraiment pour man du combat bi nga xamante ne nii mooy suñu diggante ak tax parce que lii suñu kanam moo ñu euh, maanaam euh, moom lañ gën a teg bët. Hmm. que combat bi quoi. parce que Papa Ndiaye aussi Youssou Ndour yàgg na ci arène bi ku ne ko xam na ko aussi. jàmbaar jàmbaar la. Hmm. def na fi ay jaloore ne yaru na teey ba pare li ma gën a nees euh, Youssou Ndour numéro de mooy. dafa am yëg-yëg si dëkk bi. am na yëg-yëg bu baax si dëkk bi rawatina ASC Ndiagne Samb bi nga xamante ne nii. lépp lu ASC bi ma sa xewlee Papa Ndiaye du xaar kenn du xaar kenn ku ko si jiitu. amul kenn ku muy xaar ku ko si jiitu. jërëjëf lan nga wax ki nga xamante ne nag euh, mooy le promoteur Ilimane Lo. ah le promo euh, le promoteur ñu ngi koy sant di ko ñaanal yàlla bu baax parce que aussi li mu def nii aussi du ndaw lu rëy la. Hmm. parce que aussi euh, mu ngi jàppale jeunesse bi te jeunesse bi euh, a besoin de ça parce que vraiment ñoom euh, promoteurs yëpp ñoom li la ñuy xaar si ñoom lii la ñuy xaar si ñoom parce que aussi jeunesse baa ngi fii ñu ngi entraîné yor seen licence toog di xaar kon vraiment jaadu na aussi xam nga ñuy fekk xale yi ak ñi nga xamante ne nii xam nga dañ bokk ci làmb ji ñu génnal leen tegal leen ci yoon ko jërëjëf nous, euh, bàyyi nga lancer message à la jeunesse ce côté violence. waaw li may lancer jeunesse bi moom xam nga salon bi salon de coiffure le boo xamante ni complexe coiffure barbershop le quoi. Euh, moi, en place le boo xamante ni aussi dañ fiy sensibiliser tous les clients yoo xamante ni dañ may dama leen recevoir vie. Euh, à travers la violence à travers aussi li nga xamante ni moo xew ci bi. bon li ma dit di wax violence amul njariñ amul sens. nañ jéem a moytu violence bi. Hmm. parce que violence lu mu la yàqul aussi douloureux la may violence ba doon yóbbu jeunesse fenn fu sori. jeunesse li nga xamante ni moko moo ko mën fu sori moy mu am yar. am diine respecter aussi ay waajuram quoi mané téggu ci yoon quoi kon non à la violence. jërëjëf lay kon ñu ngi dem séti sa gaay yi. ñi ci dess inshallah allah jërëjëf encore. ok waaw kon euh, ko ñu def non euh, LVD la. waaw la voix du Ndiambour. Euh, kon ma ngi ziar LVD la voix du Ndiambour di wax mention spécial aussi à vous taxaway bi rafet na am solo quoi. mention spéciale à merci. waaw ñu dem gisaat koo xamante ne kenn la si Youssou Ndour koo xamante ne mooy Badou badu di doomu ndey Youssou Ndour Badou ñu bàyyi mu nuyoo ak euh, internet yi seetaan li nga xam ne mooy la voix du Ndiambour di laaj tamit euh, nak ngeen préparé seen combat mais ñu bàyyi la nga nuyoo d'abord. maa leen di nuyu di nuyu l'ensemble des Lébou jokkul kaw njaayeen juureen ñëpp ku lim juum. di rafetlu sen initiative bi ngeen def ni quoi wa parce que mbeur mi day beure suba mais yeen bëgg avancement ak emergence motax heure bi ni ngeen ñew di jël mbeur mi ñu ngi leen di saluer ci lolu di ñaan jambour limu bëgg moo xam yalla naka suñu borom def suba nak dañ am bëss bu mak ñun wa Tëngéej zone u yëpp nous sommes tous mobilisés derrière yusundour ñun ñëpp mom lañuy top di ko ñaanal yàlla bu subaa ndam lu sedd guy li mbër di war di def yëpp Youssou Ndour def na ko koor gi may ko dara lépp da doon entraîné lépp. si biir koor gi si biir koor gi lépp entraîné na ni mu war a entraîné ñun encadrement technique am xam nañ ne jox nañu cër lu muy def ñun lay yëgal lu muy def day tàggoo am na yar sérieux na te Youssou Ndour gàllankoor la amoon rek moo tax làmba mu xaw a naaje nii mais Youssou Ndour dépassé na fii Arena Tour daf ko toj archive yaa ngi fi mbër bi fi gënoon lëj muy kii nu mu tuddati sax États-Unis Youssou Ndour moo ko terrassé moo ëpp a taxe fuuf Youssou mbër lu mu gën a nganda moo gën a baax si moom ah waaye taxe dafa doy waar de taxe mbër la bu doy waar de hmm. <laughs> bu bëri ngalaj taxe dawul war taxe xam nañ ko ñun xam nañ lu muy bëree hmm. taxe moo tuddoon Balla Gaye numéro 2 mu dem ba doxul mu tuddee boppam taxe ñun Youssou Ndour lañ mës a tudd mësuñu changé tur lenn laa lay xamal rek ñun waa Jokul yëpp ñun ñu mi mobilisé wu pare di xaar xanaa xamoo Youssou Ndour lutteurs yi ñoom dañuy jënd licence Youssou Ndour xam nga na la amee licence dafa bëree bañ jox ko ko ah, kon macha allah dafa bëre bañ yëkkati licence bi muy war a am nii booba matagul nekk mbër sax ñu jox ko licence bi mbër champion la mbapat bi fi am fii nii taj na ko. mais comme te ñun xam fi nekk nii gëj nañ gis Youssou Ndour. mais fi nekk nii ban forme nga ko gisee. Youssou Ndour nice athlète la. Euh. il est mobile. ah loolu lu ñu bëgg si combat. combat bi xoo taxe bu bëree ñu daan ka bu xeexee ñu dóor ko mu daanu. ah te dóor mu daanu laa gën a xalaat sax moom. taxe dégg nga si <laughs> taxe. saa waay nee na Youssou Ndour pare na pare goo xamante ne soo bëree mu daan la soo yeexee taxaw di xeex mu dóor la nga daanu. kon dañuy dem si li nga xamante ne mooy mobilisation bi nak ngeen euh, mobiliser dëkk di seet yi pare na bii yi pare na nous sommes tous pare ñun xam nga la ñuy ñaan yàlla ñu yeewu ak jàmm dem stade boobaa dina xam ne lépp dëgg la lenn rek laay woote ñun waa Tëngéej moom ñun dañu mës a civiliser man xam la laay wax mm-hmm. làmba ji xoolal fair play non violence amul ñu daan sa mbër ngay jël ay sées di sànneex yooyu stade bi dañ ko fi defar pour ñun mm-hmm. mais pas pas ñu koy yàq mbër yi du ñu ay dof ñun waa Tëngéej ñun dinañ ñëw sañse civilisé sol suñuy tiset jënd suñuy ticket ñëw bëre daan ñibbi. mais nan ngeen ko war a gunge. gunge de bonne ngeen fas yéene def seen mobilisation à partir de bonne heure ngeen fas def convoi bi. deux heures deux heures dina fekk lépp pare añ yi commencé nañ kaa toggal nii. ah añ yi fu mu toll nii. kon femme yi ñu ngi si waañ bi di ko di ko créé <laughs> añ yi pare na fu mu toll nii. Ah. yeewu fajar nekk si combat bi koy dem daan ñibbise. incha fii dëkku lamba la. fii ñëpp ay entraîneur lañ koo jox coach koo jox micro. mu toog si chaise bi coach Papa Ndiaye. ndeysaan fii ñëpp ay mbër lañu. jërëjëf kon nag euh, ñu bàyyi nga tàggatoo. ak ki nga xamante ne aussi mooy Ilimane Lo la nga koy wax le promoteur. non Ilimane ñu ngi koy saluer parce que mbër yi bëri nañ torop hmm. mu tànn ki nga xam ne nii ñun mooy suñu yaakaar mu Youssou Ndour mu jox ko combat. yaakaar bi mu am ba jox Youssou Ndour combat ñu Lebu yi dinañ mobiliser wu delloo ko njukkal stade bi dinañ ko duy ba mu fees bu mu am lu muy tiit ah. ab Lebu kenn du ànd moom du tiit. mooy premier combat am de fii la war a jógee rek di continuer tëgg. fii la ni fii lay jógee di tëgg ba faw. incha allah fii dinañ ko tàggul mbaar ñaanal ka duyal ko stade bi. ah loolu kon nag le grand promoteur le promoteur de l'émergence kooku mooy Ilimane Lo borom njàmm production kon nag. gars yi dem seetuwaat yeneen mbokk yoo xamante ne si mbokk Youssou Ndour lañ bokk dem laaj leen ñoom it naka la ñuy waajalee seen ni branche si combat bi nga xamante ne mooy diggante Youssou Ndour ak Taxé de combat spécial kon ma ànd sama cameraman ñu seeti gars yi. ñoom ñu laaj leen nag ngeen préparé li nga xamante ne mooy làmb suba bi seen diggante ak Taxé. waa combat moom nu koy préparé ni nga ko war a mën a préparé rek. waaw ñu gis ne fi nekk nii waa Jokkul gëj nañ. def yenn mobilisation yi te Youssou Ndour nee na moom fi nekk nii dafa mobiliser may laaj loolu nga xamante ne taxe nee na boo leen feesalee benn turbine moom na feesal ñaari turbine moom bu yéexee supporter du am fu ñu toog. si lu wóor. si lu wóor. ah kon ñu bàyyi supporter yi waa taxe nee nañ yéen su ngeen yéexee du ngeen am place kon waa Jokalante loolu la ñu wax léegi ma leen di laaj seen mbër bi ngeen ko mujjee gis ban forme la joxe. non ñun forme bu gis moom waaw benn instant ñun kontaan na si trop parce que moom respecté na entraînement am te yaakaar naa ne waaw ñun dañ boo yëpp amulaa kenn ban problème loolu lañ ko gën a jàppee quoi. waaw te Youssou Ndour muy mbër boo xamante ne vraiment ñëpp xam nañ ne dafa mën a bëre mais day fay dajax waa joo xamante ne dafa mën a bëre mën a xeex. non nu moom suñu mbër moom amul lu tiit parce que bu dee bëre rek mu ngi si bopp bi mën naa bëre am na fit bu dee fit rek am na ka bëre tamit am na ka. d' accord léegi nag mobilisation bi nag ngeen préparé. noonu mi ngi ni gars yaa ngi nii yéen a ngi waa mu gën a xam. suba mais mais ban ngeen bëgg ngeen war a départ parce que stade. fa la ñuy ndékkee suba. fa la ñuy ndékkee suñuy muur fa la foofu la ñuy ndekkee suñuy mudu fa la ñuy ndekkee mais boo leen bëggee nii plage ba bët heure ba fa bëggee garaawul ay ñëmbat lañ yóbbu ay ñëmbat yóbbu ne gaar ay lan ay ñëmbat camion ay camion lañ may leen benn ambiance boog gars nga xamante ne yi ñu ñu ñu doole la eskay rek jàpp rek dëpp jërëjëf li mooy li nga xamante mooy ambiance bi ak ñi nga xamante ñooy fans club Youssou Ndour kon nag gars yi ah bu subaa dara du yomb kon nag waa ka taxe préparé waa ka Youssou Ndour nee nañ day ñëw dal seen kaw ok gars yi tout à l'heure ki nga xamante ne aussi nag si wàllu supporter la ne muy ñu ko gars di ko wax naan kan déranger ah déranger moom xam naa rëy na moom ñu bàyyi la nga nuyo te it euh, lan ngay wax ci sa mbër. maa ngi nuyu ñëpp ku ne turam wax santam te nuyu waa dëkk bi ñëpp ah mbër moom li ñu koy wax barewul la. Mhm. parce am na lu mënu tàmmal quoi. Mhm. waaw man moom tiitu ma kaa booy nii quoi booy doog a yëg nii ay balla xaw ma. nu mu tuddati sax taxe non balla <laughs> ah? la tuddoon affaire mu ne balla la tuddoon affaire mu ne. la tuddoon. mais saa yi taxe dina xam ne taxewul la. <laughs> ah déet waay lu nooy lakkale. yéenay lakkale. mbër déranger moo ko ngemba. ndeysaan te du tiit. Mm-hmm. mais déranger euh, naka ngeen waajalee combat bi naka ngeen waajalee su côté physique. waaw physiquement moom échange moom pare nañ quoi. parce que mbër day tërën ay tërën yu métti matin midi soir. Mm-hmm. waaw yooyu moom teg naa sama bët quoi mbër mayewul dara ah. mu ngi tërën tërën yu métti parce que ngoon gi contact fële la ma ko fekk. mais parce que tamit dañ jóge si weeru koor te xam nga weeru ko tamit neexul a liggéey.

waaw loolu moom suba suba bëgg nañ bëgg nañ bok ngeen gisaat beneen waa Tëngéej beneen yu photo Youssou parce que suba fii moom peuple bi ñëppay génn ah. am na Alpha 2 fële waaw moom tamit suba day ñëw suba maanaam fi nii zone 3 fi ñëppay su suba stade bi ñëpp ñu xam ne ngeen ñew nañ de door ba aj mo ëpp na non dan dan dan de dan ba aj eh. mo ëpp na mom boobu nañ ko bàyyi si nawetaan yi non mbeur mbër am lu mu ñu tàmbal mbër am lu mu ñu tàmbal mooy daan kese parce que non affaire de violence doxunu ci waaw deug dëgg doxunu ci quoi parce que nuñ dañ dañ ñu manam bët bobu lañuy xolé mo tax ñu bay ko deug la mais si bir si bir lolu ha ah, wax euh, ñi nga xamante ne mooy autorité locale yi si côté boobu nga xamante ne mooy si ticket yi parce que ticket yi dafa metti kaar yi dafa metti t yi dafa metti mais autorité locale yi lan lañ leen jàppale. ah ñooñu moom war nañ geesu mbëri quoi man moom wax dëgg yàlla xamuma si lu bari mais mbëri mais mbëri dama dégg lu bari ñu di si kaas. autorité locale ñoom. autorité locale yi. ku dul Alioune Mar jàppale ñu Alioune Mar moom gàcce ngaalaama moom saa bu suñuy bët xonxee moom moo siy taxaw quoi dëgg moo yàlla jàpp si dara. kon ñu ngi remercier ki nga xamante ne mooy Alioune Fall Mar di koo xamante ne jàmbaar la koo xamante ne mbër yi yàgg nañ fii si Tëngéej di wax ne moom mooy bàyyu mbër yi yàgg nañu wax ne moom mooy ki nga xamante ne mooy xaritu mbëri kooku mooy Alioune Fama kon Alioune Fama mention spéciale te loo mën a yokkaat suba dolli si li nga xamante ne mooy ticket yi dolli si li nga xamante ne mooy kaar yi Alioune Fama ko def ma bàyyi la nga yeggali lan ngay waxaat jeunesse bi encore. waaw booy nu àndaa yarax teggin rek dem esaat suba tey mbëri ñëwaat daan ñaari yëpp nag léegi la ngay wax ki nga xamante ne mooy kii tëgg combat bi ñu koy wax Ilimane Lo. waaw kontaan nañ ci moom de parce que fii booy. booy maanaam bëgg nañ bëre quoi. Mm. mais ñu bari dañ amul ku leen tëggal ay moo waral ñii di bàyyiwaat xam nga rek di yaaxu. Mm. mais nag promoteur bancaire bi mu ñu fàtte am na yeneen booy fii war a am yu war a geesu quoi. waaw parce que booy dañu war a bëre tamit moom lañ bëgg mooy seen option quoi. incha allah kontaan nañ si yéen tamit de waaw. la voix de Ndiambour moo demee noonu muy LVD muy seen télé bi nga xamante ne moo xew si internet bi di bomb internet bi di dóor si internet bi ak Ndiambour production Ilimane Lo di jàmbaar di ki nga xamante ne moo tëgg làmba ju mag ji làmba ju mag ji nag dafa am combat spécial combat spécial mooy diggante Youssou Ndour ak ki nga xamante ne mooy taxe combat bu mag bi nag mooy diggante Quench ak ki nga xamante ne mooy Lac di wax ne gars ma sama caméraman ñi dem nañ Bargny jóge nañ Bargny ñëw nañ fi nga xamante ne mooy jokkul fii si Tëngéej léegi nag ñu ngi dem fee nga xam ne mooy Arène Nationale fekki fa gars yi naka la ñuy préparé bés bi dara du yomb maa ngi ànd ak sama caméraman Atalanta yàggatul incha allah rabbi li mu yaakaar dina ko nax day summeeku ma summeeku ñu taxaw ci géew bi bu arbitre sifflé man du ma xaar combat boo xamante ni combat bu am importance fu mu combat bi di yóbbu man laay gis non liggéey na nag mais amul doole Lac Rose mu duy nag xeeb maa liggéey damaa liggéey bëri wax la boo si ma ko mu feeñ mooy dëgg jour si may gën a jekk may gën a rafet may bëri li ma koy laaj mooy bu mu fi abandonné rek kon contre mu sandonné